bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa habibina wa mustafana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa ashaabihi wa daacina bi daawatihi ila yawmi tanaadi mbokk yi seetaan télévision Futurs Médias ñu ngi dellu suwaat ci kattanul yàlla di ziar mbokk yépp di ndokkeel jullit ñi ñëpp jullit bu nekk foo munta nekk ci àdduna bi ñu ngi lay ndokkeel ci weeru koor wu màgg wi di ñaan yàlla subhaanahu wa li ñu ci woor li ñu ci julli li ñu ci jàng alquran ak li ñu ciy ñaan yëpp ak li ñu ci lele yëpp yal na ko yàlla ful yal na ko yàlla nangu ci barke alquran euh, tey ñu ngi fas yéene waxtaan ci li aju ci wàllu tarbiya comme ci semaine bee wees ñu ngi doon waxtaan ci tadaamun ak ittihaad mooy wàllu benno ak wàllu solidarité tey ci sunu programme ñu indi woon wàllu tarbiya wàllu éducation ndax dañoo gis ne àdduna bi yëpp ñu ngi jàmbat jikko yu yàqu yi tey jikko yu yàqu yi suñ jikko yu ñun ñii moo yàqu bu jikko kilifa yi yàqoo ah, jikko xale yi duñ mën a duñ mën a baax Maaruf Rusaafi doon na wax ne wa axlaaqul walidi tuqaasu husnan bi axlaaqi nisaa'il walidaati mu ne ndax nit ki jikko ji rafet na mu ne xool leen ndax jikko yaay ja rafet nam det moo taxoon te ñu tànnoon dawrul usra fi tarbiyatil awlaad rôle bi nga xam ne famille bi am nañu ko ci yar xale bi loolu tey moo nekkoon sunu thème ndax gis nañ ne xale ku ko mënta yar rek yaay ja moo ko njëkk yar wala baay ja moo ko njëkk yar wala ci biir këram fa la njëkk a jëlee éducation loolu nag pour ñu gën koy leeral tey nga taxoon ñu invité woon euh, sunu xarit di sunu frère al oustaz Ibrahima Faye ñu tànnoon ko tey pour dalal ko fii tey ci télévision Futurs Médias pour ñu ànd jàngandoo ak mbokk yi ndax dinañ ubbi antenne bi ci rôle bi nga xam ne famille yi am nañ ko ci yar njaboot gi parce que éducation de base lañ wax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu tuddee xale yi daf leen tagg waaye dafa akise way jur yi moom la wax ne kullu mawludin yuladu ala alfitrati waaye fa abawaahu yu hawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi ku judd ku nekk mbaax nga indiwaale loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam waaye nee na way jur ya ñoo koy def yahud wala ñu def ko nasaraan wala ñu def ko majuus li mu bëgg a wax mooy jikko yu ñaaw yi ne ci moom yonent bi nee na ñaari way jur yi ñoo koy def ci moom kon pour ñu ànd jàngandoo loolu yépp euh, gëstu ko incha allah moo taxoon ñu invité al oustaz Ibrahima Faye kon yaa oustaz gannaaw boo nuyoo ñi lay seetaan ci biir Sénégal gi ak ñi lay seetaan ci bitum réew yépp su ko defee ñu dugg ci tomb yi tomb bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaan tafadal mashkura alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mhm. euh, ñoo ngi nuyu mbokki julli yëpp di leen ndokkeel ci ramadan al mubarak mhm. di feddli ñaan yi nga fi ñaan yal na yàlla nanguñu suñu koor te itam ak sunuy naafila ak sunuy euh, lele yëpp yal na ko yàlla nangu. Mhm. di am kontante di wéy ci woote boo xam ne woote boo ci wàllu yar la parce que jàngalekat lañu. Mhm. Ah, lu mu néew néew am na lu ci xam expérience buñ ci am. Mhm. kon buñ ci wooyee xat na waaye dinañ ci wéy si. nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci Sénégal ak ci biti Sénégal yëpp macha allah. jërëjëf euh, yaa Ibrahim ndax buñ nee jàngalekat éducateur. mooy yarkat eh, dañuy wax nag jàngale ak yar du benn dañ ne yarkat boo gis jàngalekat la waaye doon ne jàngalekat boo gis yarkat la en tout cas daan nañ wax loolu kullu murabbin muallim wa laysa kullu muallimin murabbiyan yarkat boo gis jàngalekat la waaye doonul jàngalekat boo gis yarkat la su ko defee yéen nag da boole jàngale ak yar wala yar ak jàngale moo taxoon tey ñu invité woon leen pour ngeen eh, mu aala jàll ñu li nga xam ne mooy mawduu boobu wàllu njaboot gi ak yaru xale yi mais li lay njëkka a laaj mooy njaboot bu ñu la laajoon tey njaboot al usra muy famille ba tey pour nga waxal ñu lan mooy famille euh, ana fan ngay maanaam lan nga ñuy wax euh, al usra hmm. mooy famille ci boo koy définir mën nga wuute mën nañu wuute ci définition al usra famille hmm. léeg-léeg ci ni famille di tëddee ci dëkk yi xaw naa wuute hmm. wante bu ñu waxee usra ki ci jiitu mooy yaay ak papa ay frère bokk ca mhm. euh, ci ñun famille ëpp na loolu ndax ci ñun euh, famille yaay la papa la ay frère la bàjjan ci la bokk tànt yi ci lañ bokk ñi nga bokkal yëpp ci famille lañ bokk mhm. te loolu mooy gis-gisu lislaam ndax képp koo xam ne am na àq ci dëkk yow nga yor ko rek su boobaa mën naa bokk ci sa famille mais ci contexte bii ñuy waxtaanee. Mhm. Euh, famille mën naa sax gën a yaatu loolu. ndax li ko waral mooy léeg-léeg ci biir kër gi kese nga gis koo xam ne ci famille bi la bokk war a mën a influencer yaru xale bi am cër ci moom muy bàjjanam wala tàntam nga xam ne xale bi mën na ko roy ci melokaanam. Mhm. xale bi mën na ko niru ci definam war na mën a digal xale bi mu def war na ko mën a tere bu bàyyi te fekk bokkuñ kër. Mhm. kon kooku soo xoolee ba léegi bokkuñ kër waaye mën nañ koo dugal ci famille parce que contexte bi ñuy waxtaanee mooy xale bi ki am cër ci moom war koo mën a roy war koo mën a niru kooku moo tax ñuy waxtaanee famille. Mhm. kon kooku sori na ko waaye am na cër boobu nga xam ne am na cër ci moom ba mën na ko influencer. kon mhm. kooku sori na waaye mën nañ ko bale ci famille. Mhm. beneen bi mooy ci biir kër gi mën nga gis koo xam ne dëkkul fi bokkul ci deret waaye sax na fi yàgg fi doon mag moo xam ne xale bi nekk ci kër gi. mën na ko xool di ko roy kooku man na ko digal mu def ko mën na ko tere mu bàyyi ko te su ko boobaa kooku donte ko bokkul ak moom deret waaye am na benn jeexital bu mu man a def ci xale bi. kooku it ci famille bi la kooku itam su boobaa boo xoolee ci fii ñuy waxtaanee ci wàllu yar. Mhm. kooku itam bu boobaa mën nañ ko boole ci biir famille bi. Mhm. kon ñun ci famille tey mooy ci ki nga xam ne bokk nag xale bi ba am cër ci moom ba man koo mën a digal mu def war koo mën a tere mu bàyyi. te bokk ak moom kër gi wala mu bañ a bokk ak moom kër gi mhm. su boobaa kooku yëpp mën nañ koo dugal ci famille parce que lii ñuy waxtaanee mhm. moo tax dugal noonu macha allah kon mhm. yow famille jël nga ko yaatal ko mu gën a yaatu bokkul ak euh, boo demee ci xar bu dañuy jël famille di ko tudde am lu ñuy tuddee al usratu azariya moom la ñuy tuddee famille nucléaire famille nucléaire buñ ko waxee ñoom day yem ci diggante yaay ak baay kese waaye yaatal bii nga yaatal ko ñoom gisuñ ne loolu mooy famille famille nucléaire day nekk ci diggante yaay ak baay ak nga bokkal ndey ak baay loolu nag mooy famille tubaab yi nga xam ne ñoom ci ruqu boobu rek la yem mais ñun suñ famille comme ni ko waxee famille africain ah, ah, naka noonu famille islamitam mhm. gën na yaatu kon ci defe naa ne ci boobu la ñuy waxee mhm. famille boobu gannaaw boo ko définir ba mu leer mhm. ñu nga xam ne ci wàllu yar la ñuy wax ban jeexit moom la famille bi am ci xale bi nga xam ne moom lañ bëgg a yar waaw xam nga soo gisee yarkat yi dañuy wax ne yar ci boppam dafa am ay awamil mooy ay bërëb yoo xam ne ñoom foofu la ñu mm. bërëb yooyu faral nañ di tudd ne kër ci la bokk école ci la bokk mbedd mi ci la bokk mm-hmm. société bi mm-hmm. xëy na mën naa yokk sax tey waaye euh, waxtaan bii ñuy waxtaanee tey tànn benn ci yooyu ñu tudd muy kër di famille ñu tuddee ko benn aamil boo xam ne moo ëpp solo mm-hmm. ci yi jeexital ci xale bi ndax moom wal awal wal asaas moo jiitu ci fi ñu yaree xale bi te mooy base bi aussi mhm. li ko waral mooy xale bi fa la jëkk wàcc lépp lu muy def ci àdduna mu ngi koy jëlee ci ñooñu mhm. foofu lay langue seen langue lay jëkk dégg moo tax loolu dañ ko tuddee luxatul xaw mi mhm. xale bi luxa bi mu njëkk wax xam nga luxa kër gi la langue bi dama langue bu kër gi la làkk mu njëkk a wax mooy làkk kër gi la làkk boobu ñoom liñ ci wax su dee lu baax la xale bu lu baax lay tàmm bu dee lu bon lay xale bi lu bon lay jëkk mën a wax. Mhm. parce que ñoom li ñu wax rek moom la xale bi wax. Euh, boo xoolee def seen defin moom la xale bi jëkk man xale bi balaa mooy jàng luxatul madrasa làkku école bi balaa koy dégg. Mhm. luxa kër gi lay jëkk dégg. Mhm. donc definu kër gi lay jëkk def. loolu moo waral ci biir kër gi su fekkee xale bi jàngalekat yi toujours ñoom léeg-léeg ñu mën a wax nettali ci famille loo xam ne xale yi lañ ko jàngal ci famille. parce li muy def. li muy def rek li seen kër def rek loolu la xale bi def. Mhm. nga gis xale boo xam ne day ñëw waaye fecc lay jëkk indiwaale ci école bi donc da xam ne kii kër ga dafa am fecc. maa ngi maanaam ay ay yaayam ak bàjjenam dañ koy tàccu. dañ koy tàccu mu fecc. Mhm. donc moom moom fecc lay jekk man. Mhm. nga gis xale boo xam ne moom bu ñëwee rek julli lay jëkk jiim. julli parce que ñi ko yor ci kër gi dañuy julli mu di ko gis. loolu lay jëkk a jéem. gis xale boo xam ne moom. dóor lay njëkk a def. Mhm. day dóor rek nga xam ne kii seen kër lii dafa dafa am. Mhm. donc xale bi euh, ni mu nekkee ni mu takkoo ak kër gi te it takkoo googu nekk takkoo gi jàkk ci moom. Mhm. bu dee mbëggeel la sax bu dee cofeel la sax ñooñu nekk nit ñu bëggante nekk nit ñu am cofeel ci moom. xale boobu loolu da koy may mu nekk nit ku am amuur ci nit ñi. bëggeel bu fekkee dañoo soxor ci moom loolu dafay feeñ ci moom parce que ñoom li ñu jëkk def ci moom rek. melokaan yu njëkk feeñ ci moom xale boobu moom lay jàng melokaan loolu moo tax yarkat yi wax ne euh, kër muy famille mooy élément bi gën a am solo ci wàllu yar suñ ko raté su ko nit raté presque xale bi dabaatal moo ci nekk mais lu bëri te euh, école mun na di yàq sax di yàq mais kër nekk baas di defar mais su kër yàqee école mënu ko defar su kër yàqee mbedd mënu ko defar mbedd moom mën nga yor sax xale di ko yar yar boo xam ne parce que mooy baas ci moom mbedd mi xaw koo yàq tuuti ba mu dérapé nga defee ne sànku na mais su maggee tuuti da ngay gis ne comme kër gi moo doon baas ci moom bu màggee tuuti rek mën naa jàdd day dellusiwaat ci li xam ne moo doon baasam mhm. nit léeg-léeg mbedd yàq ko mais comme am na éducation de base kër ga mhm. souvent bu demee ba yàqu rek mën na dellusiwaat parce que jiw wi mu ngi ci moom parce que kër gi moo tax base bi waaw te en général nit mhm. day faral di bëgg fu muy dellu bugg koo sànni uh-huh. nit lu mu sori sori sori ci àll bi bëgg na foo xam ne mën na faa dellu uh-huh. parce que dafa nit dafa takkoo ak famille daf leen gëm daf leen bëgg uh-huh. daf leen di sago daf leen di ndamoo dafa leen di tiitroo donc su fekkee foofu ñu baax la rek bu bëggee sànku bu delsee ci ñoom rek day delsiwaate dafa fekk lu baax waaye nag foofu su baaxul néew na xale bi école mën ko defar néew na xale bi aussi euh, mbedd mi mën ko defar moo tax ñu wax ne élément bi jàkk ci ci yar mooy kër donc yow tudd nga sax hadis bi. boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moom ni mu waxee hadis bi lu leer la. dafa wane ne moom xale bi bi muy juddu man yàlla mi ko sàkk dama ko sàkk mais amul benn tâche. te loolu neex naa xam. benn xale musul juddu di sàcc. liir du ñëw di fecc. liir ñëw du saaga. donc bi muy ñëw indiwul benn tâche ci yooyu. léegi bu ñëwee doo ba mu yàgg mu mën a def commencé wax mais wax ji mu nekk ay saaga. commencé def mais def ñi mu nekk def du jàdd dañuy xam ne ñi ko doon ñi mu ñi mu jàkk jaar seen loxo ñoo mel noonu loolu moo tax yonent sa saa nga wax ko ci bi nee na bi ngay juddu da ngaa juddu waale mbaax mbaax mais sa ñaari way jur ñoo lay def ab yahud ñoo lay def ab juif ñoo lay def ab majus donc loolu ñett yooyu sa bi saa salaam tudd junj la rek junj la waaw mais dafa bëgg a wax ne lu baax ci yow ñoo am nañ ca wàll ñoo ko def mais soo dëngee itam ñoom ñoo ko def. am nañ ci yoon. kon responsabilité moo tax euh, neexul. Mhm. mais lii ñuy coow wax dëgg yàlla ci yaru ci yaru. Euh, xale yi ci jàddu xale yi. Mhm. neexul nag mais defar gi dëgg-dëgg mu ngi ci mag ñi defar aussi. Mhm. ndax xale yi ni ñu mel wax dëgg yàlla. ci xale yi lañ ko jàng macha allah xale yi ko jàng kon loolu am na solo trop yaa Ibrahim xale yi nu ñu mel ci euh, mag ñi la ñu ko jàngee ndax ñoom bi ñuy ñëw mbaax lañ indiwaale. comme ni ko yonent bi waxee. waaye mu tudd ci way jur wa ak eh, moo xam bu góor ba wala bu jigéen ba man nay dem ba ca frère ya wala sœur ya man nay dem it ba ca biir société ba ak itam social maanaam société bi li def ci moom eh, fa abawaahu la yonent bi wax ñaari waajur ya waaye mu mel ni yaay moom jegee xale ëpp na ci solo lool yaay ndax boo xoolee juróom-ñeenti weer ya yaay ja la bi mu juddoo itam yàlla daf na yaay ji yow laa wóolu ba léegi nàmpalal ma ko lu tolloog ñaari at wal walidaatu yurdi'na awlaaduhunna lay kaamilayni kon kii nampal mooy yaay ji rôlu yaay ci yaru gone Ibou Faye boo ñu ko doon tere boo ñu ko doon teretal lan nga ñu ci ndax xam naa ne xëjul ci émission mais lan nga ñu ci xam nga hmm. euh, ci l'islam ak itam loo xam ne mooy xam bu ñëpp nangu hmm. yaay ak papa seen rôle ci yaru xale bi hmm. dafa dépassé jubbanti mais mu ngi tàmbalee ci ñoom ni ñu mel. Mhm. kese sans jubbanti sans ñu wax xale bi melal nii xale bi par force day am jikko yoo xam ne da koy jël ci yaam loolu don na mhm. loolu moo tax ñoom da am ñaari cër ci mbir mi benn ñoom xale bi daf leen ay ñiiru ci loo xam daf koy don virage si. chey mhm. virage si nga xam ne loolu don na la. te loolu yonent bi da ko saxal ci ay hadis yu bëri wane taxayyaru li nutfikum fa inna al irqa dassaas tànn leen fu di. Euh, taf li seen lor mhm. jigéen ju ngeen di sëyal mhm. ndax séddit day day batu mhm. nit day donn day ñëwoog ki ko jur wax ne sallallahu alayhi wa sallam yéen way juri xool leen ki ngeen di may seen doom euh, waxit góor ñi dangeen xool ki ngeen di takk ndax ñooñu ngeen di may muy jëkkër muy jabar doom ji bu juddoo daf leen di niw kon boo xoolee ci asl ak sharaf lislaam da ko jox cër doog a ñëw ci yaay ak baay mhm. seen jub seen dëng boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel ni dafa wax ne xale bi amaa mu ñëw nii la war a ñëwee mhm. war fekk ñaari nit ñu am relation yoo xam ne ku ne da ngay ci xale bi juddu si mhm. xam ne loolu moo tudd sëy moom pour protéger xale bi ak pour jox ko droit bi mu am ci tarbiya ci uh-huh, yar ko uh-huh. dafa jëkk a wax ne loolu ki koy man ci moom mooy ñaar ñoo xam ne bànneex kese boolewu leen woon uh-huh. mais dafa am fu ñu jaar tudd sëy ku ne am xalaatu bëgg a tabax famille mu doom ji ñëw ci anam googu ñu tànn ay valeur tànn ay valeur parce que fi ni doom bu fekkente ne dafa judd fekk bàyyi joo xam ne mu ngi pare di ko xaar ak yaay joo xam ne dafa pare di ko xaar nga xam ne ñoom ku ne pare na sa responsabilité di xaar doom jooju fas yéene ñoom ñaar parce que itam yar dafa am loo xam ne papa ko man am loo xam ne yaay ko man mhm. donc ñoom ñaar bu fekkee dara takkewu leen xale bi faw bu yaay ji yoree dina mhm. mhm. dina def lu man mais dina manqué ci côté yaay ji da leen a takki muy tudd sëy bu leen boole bu dagan boo xam ne xale bu sa responsabilité moom bu ñuy xool ci wàllu yar dafay mel ni moo ci ëpp responsabilité maanaam xale ni loolu li ko waral mooy xale ni ko yaayam ni mu takkook yaay ji parce que xale toujours intérêt ki ko ëppal intérêt kook lay jëkk a xam mhm. te yaay ji moo ko jëkk ëppal moo ko ëppal intérêt waaw parce que mhm. moom li muy jëkk mos li muy jëkk xam ci lu neex yëpp ci yaay ji lay bàyyi ko bu yuuxoo yaay jee koy nax mhm. moo koy jox mu lekk donc intérêt boobu nga xam ne moom lay jëkk parce que euh, xale ci intérêt lay daw jëm intérêt boobu loolu moo tax moom ci yaayam lay jëkk lay jëkkat attaché wu mhm. su boo comme yaayam la gën a jegeet yaayam la gën a taxool bu xiifee moo koy jox mu lekk moo koy nàmpal moo ko bu feebaree moom lay dund moom loolu dina tax xale bi li muy jël ci yaayam du ko jël ci du ko jël ci papa mhm. moo tax yaay alors moo ëpp solo mhm. sànq wax nga fi benn shaa'ir benn waykat bu baax bu wa axlaaqul walidi aywa mu wéy ne euh, jikko yi am na keneen ko wax ne hal yor li atfaali kamalun mhm. isar tadawo su day jën naaqisa moom la ba léegi rek waaye maaruf saafi maaruf rusaafi tayib mu mhm. ne ndax mën nañoo yaakaar ci ci yaay yi ci doom yi ak mbaax mhm. ak mat su fekkee ñañu nampal ña nampal dañoo manqué donc loolu suñ koy wax tey nit ñi dañu foog ne alors dañu bëgg a sikkal jigéen mais dañu bëgg ñu xam ne jigéen moo ëpp importance responsabilité responsabilité ci yar te responsabilité boobu su ko jëlul góor dina yar ba sonn mais mënul baax mhm. sa nabtu yan butu fi jinaan mhm. ka misle nabtu yan butu fil falaat fil mhm. ne nañ gàncax ki sax ci àll bi kenn moomu ko moom loo wala saalum saalum di wax bab bab wala saxayaay boo demee ci bool bool dañ ko wax saxayaay mooy gàncax koo xam ne nawet ba taw rek moom mu sax kenn bayu ko kenn moomu ko bokk ak bi nga xam ne tool bi dañ ko ruuj defar ko ba mu baax xaar ba suuf tooy tànn jiw yi ji ko fa mhm. boo leen jaawalee bu ñu demee ba ñor jot da nga xam ne biñ bay ak biñ topp suñu mhm. benn mhm. kon nit ñi vraiment yar moom way jur da cee am solo surtout nag yaay ji yaay ji moom presque moom làkk bi xale bi jëkk a wax làkku yaay ji làkku yaay ji lay jëkk dégg même soo amoon doom tey nga tuddee ko aw tur yow woo xam ne yaay ji moom itam daf ko tuddee aw tur yaay di ko wooyee lii nga turu yaay ji mooy turu yaay ji mooy mhm. parce que li ko yaay woo moo ëpp mhm. yow li nga koy woo mhm. kon yaay ji da am solo soo xam ne bu solo soosu bu ñëwul taribe ku nekk mën naa def ba sonn mais du sotti mais du sotti mais du sotti quoi macha allah euh, kon daal al baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wala si xabusa la yaxruju ila nakidan euh, léegi bu ñëwee ci rôlu bàyyib ji nag bàyyi ji al abu xam nga yonent bi alayhi salatu wasalaam ibrahim am na benn nit ku ñëw ne ko ana ban nit laa war a mën a jox akam kan laa gën a war a mën a fonk ci nit ñi yonent bi daf ne ko sa yaay mhm. mu ne ko ak kan mu ne ko sa yaay mhm. mu ne ko ak kan mu ne ko sa yaay mhm. ba muy ñetti yoon mu ne ko ak kan mu ne ko sa baay kon yonent bi sedd na yaay ñetti yoon sedd baay benn yoon xam naa mooy li nga wax léegi ci rôlu yaay responsabilité yaay dafa ëpp lool ci wàllu yar ci wàllu ci wàllu ci wàllu doom ji mm-hmm. eh, eh, waa ji doon na wax ne ahabu naasi li ummi eh, ahabu naasi li ummi wa man bi ruuxi wa man bi ruuxi ahabu naasi li ummi maanaam ki na ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy sama yaay mm-hmm. ndax nee na moom moo joxe rooxam ngir man ma dund mm-hmm. moo joxe rooxam ngir man ma dund bu ñu ñëwee ci dawrul ab bi góor ñi Ibou Faye tuutiwul malgré que rôlu yaay gën a fort mais góor rôle responsabilité la ci lu bari. bàyyi ji encore ban rôle ak ban jeexit moom la bàyyi ji a def ci doom ji. Euh, bàyyi ji. Hmm. am na rôle bu rëy boo xam ne moom rek. moo ko hmm. mën a def ci doom. Hmm. Euh, suñu sànq maa ngi doon wax ne ci wàllu donn xale bi niru ci donn daf koy jël ci yaayam ak ay baayam ak ak fa deretam mais soo bàyyee loolu nga ñëw ci wàllu taxawaay bi nga xam ne moom la papa ji war a taxaw ci kër gi loolu Papa ci am benn rôle boo xam ne kenn mënu ko ci remplacer rôle boobu mu ngi tàmbalee ci baay ji di jàppale yaay ji baay di jàppale yaay ji ba yaay ji mën a def rôle mhm. te loolu mooy xale bi dafay toll foo xam ne li ëpp ci li mu soxla ci dundam yaay moo koy jox. Mhm. dafay toll foo xam ne place bi gën ci dundam foo ko mën a yóbbu ci àddina bi mu dend ak yaayam moo gën. Mhm. te foofu su fekkente ne yaay ji moom itam amul ku ne ci gannaam koo xam ne mooy doxi ay soxla mhm. di ko dimbale di ko wutal li mooy lekk moom yaay ji di ko moo dox diggante mag mbedd mhm. mhm. def ci doom bi du ko mën a def ko mën def te loolu papa moo koy def maanaam papa moo tax alxuraan dafa wax ne wa alal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna alal ma'ruf maanaam ki ki nga xam ne moom lañ jural doom ji gis nga waxul sax ki jur doom ji mais def ne ki nga xam ne moom lañ jural doom yaay ji ne alxuraan ne kooku moom moo war a gàddu dundub ndaw si mhm. ak koddaayub ndaw si mhm. ndax ndaw si faw mu dund faw mu am koddaay mhm. te loolu nga xam ne fo dafa war a am fu mu dëkk am lu mu lekk am lu mu naan am lu mu suturloo loolu yaay ji su ko amul ci kër gi amul ku ne ci gannaam di sonn mu yaakaar ne ko mën na ko ko indil yaay ji mooy futteeku dal di ko génn wuti ko léegi nag wuti boobu muy wuti dafa am lu muy manqué ci ci xale bi moo tax papa ji moom féetale gi ñu ko féetale mhm. wuutil indi ci kër gi mhm. loolu mooy liy jàppale yaay ji ci mu ma def rolam loolu nekk benn côté macha allah mhm. beneen côté bi mooy euh, ñëpp xam nañ ne defe naa ne dafa mel ni am na mbokk mu bëgg a participer xam naa bu ñu ko dimbalee jël ko ba noppi ñu ñëw ci beneen ci beneen asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah euh, yaa oustaz cheikh bi na ngeen def ñu ngi lay siyaare ñu ngi leen di delloo ziar man la oustaz Fall oustaz Fall waaw <laughs> ñu ngi alhamdulilah Eh, kontaan si waxtaan bi wax na mm-hmm. eh, ñu bari fàttali ngeen leen fàttali ngeen leen lu ñu lu ñu jàngoon sax waaye nag eh, am nañ ci bind bu bees. Mm-hmm. yàlla dogal na wax dëgg waxtaan moom benn waxtaan la rek. Mm-hmm. am nañ ci kontaan bu baax. li ngeen wax ci doom ak ndey al umu awalul madrasa ndey mooy premier école ci doom. Mhm. kon loolu su ngeen ci ni ko oustaz Faye leerale e ak ni nga ko lifiree loolu wax dëgg yàlla soññ na jigéen ñëpp tey ci doom mhm. te seen wax bi def mën naa defar lu bare bare bari bari ndax bare na nit lu mu deful ñàkk xam rek a tax ko mhm. kon nag su ngeen ko leeralee nii nekk ne jéego boo xam ne bi ñëpp ko jëriñoo ñoom kontaan nag lool bañ a téye lu yàgg jërëjëf waaye di leen xamal ne daal waxtaan bi wu wu ñëpp di seetaan la nag. Mm-hmm, mm-hmm. waaw yàlla na yàgg. amiin jërëjëf. Eh, yàlla na ci yàlla def dégg it ak. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Fall. Oustaz la. ah d'accord uh-huh. euh, Amadou Assane voilà c'est ça Ibou Faye yaa ngi ci ah Sarr Sarr. waaw wax nga dëgg yaa ngi ci dawrul ummi. waaw dawrul ab ah, mm-hmm. bi. ah bi. moom ji war a joué ndax. comme jàppale gi muy jàppale yaay ji pour mu mun a def. waaw loolu loolu benn boor la. Mhm. beneen côté bi mooy nit ñaari mbir moo ko tabax. Mhm. nit koo gis mooy dafay dañ koy dañ koy développer ci côté sentiment. Mhm. mais dafa soxla encore beneen rigueur benn sévère boo xam ne. dafay ne ci kanamam di ko orienter. yaay ji moom dafa am côté muy taxawee xale tey soo ko dóoroon ci mbedd mu daw dugg si kër gi. bu ñëwee réaction bi papa ji def ak bi baay ji def du benn. ak bi yaay ji def hmm. yaay ji moom day daw daje xale bi yuuxu kan moo ko dóor. Hmm. mais bu dee papa la xale bi mën naa daw ñëw ci moom mais boobu yaay ji am. daw hmm. tataf ko. laaj ku ko dóor xaw a mer. loolu dafa am lu muy def ci xale bi. bu amee rek da xëy xale bi dal di noyyiwaat mel ni kukin mhm. mais dóor googu papa ji di ko dóor parce que loolu rujoo la lay tabax ci moom mhm. dafay dafay mhm. moom mu mën a dafay tabax ci moom mu jéem a dékkul li ci mbedd mi dafay tabax ci moom mu xam ne àdduna dafa am ay jafe-jafe ci nit ñi mën a jëflanteeg ñoom mën a yërëme mën a def nanga mais dina nekk nit koo xam ne lii ñëw ci kanamam ci lu métti day am résistance taxaw war ko mën a te loolu papa yàllaa ko def ci papa moo koy def ci xale donc xale bi da koo soxla. ma mhm. tax na papa ji moom ci lu côté boobu moom rek moo ko mën a taxal. Mhm. beneen bi mooy gis nga dafa am lu yàlla def yàlla lu mu def noonu la oustaz gis nga waxuma kër goo xam ne dañuy xëccoo autorité bi quoi. Mhm. mais su fekkee kër gi parce que kër su amee benn kilifteef bu ñuy xëccoo rek ki ñuy kilif moom day dal di gëlëm. mais su fekkee kilifa gi muy papa ji. moom jox nañ ko kilifteef. dem mat ko. dem mat ko dem mat ko te ki ko ko jox xëccoowul ak moom. Mhm. moom itam tem mat ko. mu yaay ji mu yaay mhm. di nga gis ne xale bi du am benn problème. Mhm. parce que xale naturellement xale yi naturellement respect surtout xale yu góor respect. ak cër bi nga xam ne moom lu ñuy yëg ci papa ji duñ ko yëg souvent ci. ci yaay ji. cofeel gi ñu am tudd nga fi léegi nee na nee na yaay trois fois doog tudd cofeel gi ñuy am aussi ci ci yaay. duñ koy faral di am ci pap mhm. du tere nag ku ne da nga bëgg sa ñaari wayjur mais mhm. loolu yàllaa ko tabaxee mhm. ni loolu moo tax su fekkente ne xale bi kilifteef bi kenn xëccewuñ ko wayjur wi ñu bàyyee ko ko te moom itam mu mat ko di diisoog ndaw si alors xale boobu dafay nekk xale boo xam ne macha allah parce que lu ko xal papaam wax rek daf koy faral di def parce que intérieurement xale yi papa yi la ñu gën a wekk ka yaay euh, fii rek sunu école dafa am benn xew-xew benn xale bi dafa ko madame bi daf ko dóor mais madame bi daf ko dóor xale bi jooyut dóor ko bu jooyut ba ñu laajee xale bi yow lu tax ñu lay dóor jooy mu ne moom su ko jigéen dóoree du jooy du jooy donc loolu maanaam xale boo xam ne dem na yëg na teel ne moom su ko moom moom na jigéen di ko dóor muy mm-hmm. donc kooku wóor na la wóor yàlla ne yaram am na foo xam ne bu fa tolloo bu fekkee jigéen rek rek moo ci de ak moom mm-hmm. du ko jox ci du ko mm-hmm. jox moo tax yarub xale ni mu soxlaa jigéen lool mhm. la soxlaa góor goo xam ne mhm. dafay taxaw te jigéen ji jox ko ci rek mhm. parce que itam xale bi bu fekkente ne dafa nekk ak papaam alors mais dafay gis ne papa ji dafa yaay ji day xëccoog moom autorité day xëccoog moom autorité day yëg ne papa ji su ko waxee dara yaay ji daf koy wax leneen lu bokk da papa ji wax loolu su amee rek xale bi ci taxawaayu papa ji bu mu nekk xale du du du du mën a feeñal ak bañam. Mhm. mais su xawee bu xawee bu xawee. màgg rek di bañ màgg rek. Mhm. commencé xeeb papam xam nga loolu. dafay am ci xale yu góor yi comme dafay am ci xale yu jigéen. Mhm. dañuy wax di jigéen bu la sa doom tàggoo bu fekkee bàyyi jàng da nga koy yebal ne ko demal nga tàggu ji sa papa. sa doom tàggu la nga yebal ko rek. te waxuloo ko demal nga laaj sa papa loolu mooy li nga wax nii. day tax xale bi ëllëg du jox autorité. pay kon li nga ne cër boo xam ne jox nañ ko góor gi te xëccoowuñ ak moom moom la yàlla waxoon arijaalu qawwaamuuna ala nisaa yi su ko defee loolu defe naa ne Ibou Faye am na solo trop ci loolu mooy taxawaay bi nga xam ne mhm, mhm. yàlla ko jox góor mhm. arijaalu qawwaamuuna ala nisaa qawwaamuuna ala nisaa tey coow lii da cee xaw a bari nit ñi sax léeg-léeg alxuraan li mu wax nit ñi léeg-léeg ñu ragal ko wax parce que coow lee bari jaru ko li yàlla wax rek mooy dëgg waaw arijaalu qawwaamuuna ala nisa bima faddala allahu baaduhum ala baadin wa bima anfaqu min amwalihim maanaam cër mhm. bi nga xam ne moom la yàlla jox góor loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala risque yu bari ci dundu famille bi mhm. góor gi la ko yàlla féetale li mën a jël bakkanu nit yépp ci liggéey yàlla daf ko féetale góor gi góor mhm. moo tax ma ne risque yu bari ci famille yàlla góor gi la ko sédd rigueur bi it ak dëgër gi it moom la ko tey benn góor bu fekkonte ne Euh, dafa yambara yambara yambara yambara yambara ba nga xam ne bu benn problème amee ci kër gi benn sàcc ñëw wala benn même jigéen ji lay yebal mm. maanaam dañ naan kii du góor mm-hmm. dañ naan kii du góor mm-hmm. kon li xew mooy góor am na benn role boo xam ne moo ko war a jouer ci njaboot gi ku ko jël ku ko xëccoog moom mm-hmm. góor gi mën naa perte cëram doye di mais li ci xew mooy njaboot gi ci boppam ñooy loru ñooy yàqu ñooy loru parce kilifa du caaxaan ci nit maanaam yàlla daf ko bind sànniwul ko mais dafa am fu mu ko jaarale mhm. foofu mu ko jaarale gis nga mhm. su demoon sax ba papaam génn àdduna yaa am génn àdduna parce que kilifa nit ñi li foog ne mooy moom kilifa du oustaz ki lay du jox nga lekk du jox nga naan kese mhm. mais kilifa mooy delluwaay nit foo mu am delluwaay boo xam ne bu jaaxlee dellu fa bu tiitee dellu fa bu amee problème dellu fa loolu mooy kilifa donc kilifa boobu jàng na wala jàngut xam na wala xamut yow mooy sa kiraay kilifa la rek mooy sa kiraay mooy sa kiraay te boo ko amul da ngay widd mhm. loolu moo tax boo gisee benn xale boo xam ne dañ koo jur mais waxuñ ko sax kuy papaam mhm. ñu bàyyi ko rek muy dem ci àddina bi xoolal xale bi dafay dund mais naaxis la mhm. maanaam dafa am lu manqué ci xelam loo xam ne benn vide boo am ci biir kelam dundam bi yow mën nga ko bañ a xam sax mais moom day dox di xalaat day dox di xalaat loolu tant que waxuñ ko bu demee ba am fit rek day jéem a laaj ci kan mooy mais loolu chaque année fii chaque année ñu gis fi koo xam ne dañ naan Amérique la jógee wala Europe la jógee dégg a ne papaam sénégalais la mhm. mu dagg billet di wër pour gis papaam jooju pour vide boobu nga xam ne vide bi nga wax ne moo nekk ci moom ci biir moom la dund mhm. nekk nit feeg gisul waajuram gisul loolu voilà loolu parce que ci dund nit la loolu moo tax ci yar yar mhm. yar bi nga xam ne moom la mag ñi daan yar nit ñi mosuñ préparé mosuñ waajal nit lu dul ne danañ fexe mu am kilifa su papaam ak yaayam génnul àdduna sax ñu sës ko ci ñoo xam ne dañ koy yëgal ne ko ñii ñoo taxaw sa taxawaay papa mhm. parce que xam nañ ne xale bi faw mu soxla ku ko teete ci dundam mhm. bi mhm. te moom loolu suñ ko doon wutal benn bant sax mu yëg ne bant bii moom mooy kilifaam sax loolu dana ko mën a arrangé xam nga loolu li koy dëggal bi ko yàllay remplacé xoolal li yàlla wax ci orphelin li yàlla wax ci jirim jirim nga xam ne seeni àq ba way juram génn na àdduna moo xam bu góor bi la yaay ja néew ja néew na doole xoolal li yàlla wax ci société bi muy dund ne nañ faxe ba doon way juram ba li ko góor gi doon defal na société bi taxaw di ko ko defal parce que loo xam ne lu mu war a sax la maanaam lu mu war a am la te wóor la ne loolu lu muy manqué la yàlla ne bu mu fexe ba sentir ko ne way juróom génn adduna moo tax ak yim jox jirim am naa yaakaar ne dafay yaatu na mais même si si si wàllu ci wàllu boo xoolee ci wàllu takk si mhm. dafa am ci da benn charte boo xam ne bu amul ci sëy du wér mhm. mooy kilifa l'islam dafa wax ne sëy bu amul kilifa al waliyu sëy bu wér léeg-léeg na gars yi ci biir yombal gi ñun la du ci sarta non non waliyu <laughs> waliyu sëy ci la bokk mm. waaw parce que boo demee ci alquran mm. ba sëy ba lëjee ñu war koo lijjanti mm-hmm. alquran daf ne fabaatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha mm-hmm. in yurida islahan mm-hmm. yuwaffiqillahu baynahuma ahlu la wax ahlu waxul ku ngeen daje ci mbedd mi mu muus jël leen ko mu ñëw régler sëy bi mhm. def ne sëy dana toll foo xam ne faw ngeen dem seet kii mbokk ndaw si mhm. seet kii mbokk ko waay jur ki ñoom ñaar ñu bokk ñu waxtaan parce que nit ñi oustaz dañu xamul ne takk sëy ak defar sëy mooy base ci société mhm. régler ak mu sëy mooy base société soo gisee société bi ci mbedd mi kenn mënu ko régler parce que sëy ci boppam moo am ay problème kon kilifa googu même sa way jur génnoon àdduna su la nit mayee fekk du même sa nijaay la mhm. même sa nijaay bu la mayee sa nijaay bu la mayee te mhm. du su ndigalal papam ci la ko mayee mhm. sëy bi wérul macha allah bu ñu jëlee mbokk mu mu tomb boobu am na importance ñu jël ko am na mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum aleykum salaam waaw waa kay man la Ndeye yow la Ibrahima Faye Ndeye Ndeye jëlër ba baax ah Ndeye ba baax fële eh, école Thier waaw waaw maa ngi nu këriñ si loo vie alhamdulilah waa kay maa ngi lay ziar ci koor gi. alhamdulilah ndey na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax. ana xale yi ak baba yëpp. ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. alhamdulilah di la ziar alhamdulilah ok. di rafetlu ci jotaay bi ak xam-xam bi macha allah. alhamdulilah. Mhm, mhm. di ñaan yàlla suñu yoon yal nañu nangul koor gi. amiin ma rafetlu vraiment li ngay wax ni lu dëgg la ndax yàlla rek moo ñu boole. walla yàlla rek moo ñu boole moom Ibrahima toujours li ma am ci lënt lënt tamit ci moom laay ñëw di ko laajte. dëgg la maa fi njaboot ji wépp. dëgg la jërëjëf. donc ñu ngi rafetlu jotaay bi di ñaan yàlla ko ay. ci école Thier. waaw waaw ah, ñu ngi ziare monsieur Ba. Mm. ak famille bi yëpp Ndeye. Mm. Eh, loolu am na solo ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant Ibou Faye. Mm-hmm. ñu ngi woon ci eh, fànn boobu. Mm. ci même bu la sën maye. te doonul ci sa ndigalu waajur su tuubaay ji itam day xaw a doy waa léegi xam nga nit ñi dañ koy faral di def mm. mais l'islam mm. moom dafa wax ne bàyyi mooy maye sëy mbaa ku bàyyi joxe ndigal mm-hmm. papa jooju su fekkee nekkul fi aussi sëy bi duur kum neex rek nga maye ko mm. mais l'islam dafa organisé ne ku bokk ak papa ji mm-hmm. papa ji ba léegi maye gi day dellusiwaat ci kër gi mm-hmm. loolu ñoo pour bëgg xale bi am kilifa parce xam na ne xale bi bu doxoon ci mbedd mi lii jàpp ne kum neex mën na ko may rek mhm. moom mooy am problème mhm. parce que xale dafa toll foofu même boo xoolee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. ci wàllu tànnum jabar ak jak jëkkër dafa wax ni góor ñi bu ngeen bëggee jabar xool leen ci lii ngeen dem seet ko takkal seen bopp takk donc góor mën naa jëpp dem ñaari boppam jabar mais bi mu ñëwee si jigéen ñi daf ne way jur yi la waxat daf ne isa jaakum man tardawna diinahu wa mhm. way jur yi koy maye la mhm. wax ne su ngeen gisee parce que xale bu jigéen day toll foo xam ne moom amul ñorok xam jëkkër man mhm. naa xam ki mu bëgg mais ndax waa ji mat na jëkkër wala waa ji matu jëkkër xaw nay wute nag ah ki nga bëgg ki mat jëkkër moom wute na waaw su defee <laughs> jar nay jar nay jàngat xale bu jigéen euh, dafa l'islam dafa bëgg xale toujours mu am kilifa loolu moo tax usra famille kër am solo l'islam du d'accord benn yoon kër gi tas xale bi su papam faatu woon l'islam day bëgg ñu am kuñ ko yëgal ne ko ñii ñoo fi des ñooy sa papa mhm. looy def nga dem tàggu leen mhm. buñ la naree mayee boo gisee ku la bëgg ku ñooñu la lay maye mhm. loolu yëpp pour bëgg xale bi bañ a demal boppam parce que xam na ne moom bu demalee boppam dugg ci biir société bi am na yoo xam ne mënu ko régler ngaañ lay indi ci moom moo tax léegi buñ demee ba nga xam ne borom kër ak jabar mën nañ toog ci kër gi sax mais doom yi yëg am nañ liberté bokk na ci li gën yàq oustaz mhm. yar bi mooy liberté mhm. bon man damay wax loolu toujours ne suñu système bii ci wàllu yar bii ñuy dund actuellement mhm, ci droit yi mu jox xale yi da ci am yoo xam ne ñun sax xam nañ ne dëppool ak suñuy réalité dëppoowul ak suñu lislaam te nit ñi xam nañ ne mu ñuy gaañ lu tax mooy comme ñun amuñu xaalis réew bu amul xaalis day bëri luy ñëw ci ay doxalinam loo xam ne ñeneen ñoo am xaalis ñëw daggal ko benn mos ni ko yóbbuwaaleel ma lii loo xam ne ñàkk ko ko yóbbee ñàkk ko yóbbee ñu yàlla musal ci ñàkk waaw mais am na yoo xam ne day ñëw sax wàllu yar bi daf lay mhm. wone dëppwul ak mhm. sunu sunu sunu sunu sunu mhm. parce que nit ni ko yàlla bindee dafa am côté yoo xam ne xelam la xel dafa am loo xam ne xel mi ngay waxat am loo xam ne fit bi ngay waxat te waxtu bi mu soxlaa ñu wax a xelam mi soo waxee fit wi du baax waxtu bi mu soxlaa ñu wax ak fit wi soo waxee. xel mi du baax waaw xam nga ci cadre boobu ngay waxee euh, euh, maanaam yarkat yi dañoo jël yar kaaj ko ci ay pàcc yu bari am na bu ñuy tuddee tarbiya jismiya am bu ñuy tuddee tarbiya ruhiya am bu ñuy tuddee tarbiya aqliya am na sax tarbiya wiqaiya yar boo xam ne ci wàllu yaram wi la ak yar boo xam ne da ngay yar roxu gi ak yar boo xam ne da ngay yar xel mi léegi nag xëy na il faut xeetu yar yooyu yëpp nga dajale ko ci nit ki pour moom mun koy defar mais dafa mel ni tarbiya jismiya bi rek ci la ci la ñuy gën a ci la ñuy gën a concentré wu pour defar yaram yaramu xale bi mhm. xëy na bu ñu jëlee mbokk mi nekk ci ligne bi danañ gën a ñëw pour nga xool naka nga ñuy tojalee ñett ñett yooyu allo salaamaaleykum maaleykum soxna si ñu ngi fi rek alhamdulilah waaw dama doon baalu àq ci koor gi dal nañu yàlla boole baal di ñaan ñaan di ñaanal di ñaanal TFM ak ñi fay liggéey ak yéen ñëpp. amin amin amin kooru jàmm. amin soxna si amin man nag damaa dégg ngeen waxtaan ci mbirum góor dama doon julli léegi laa pare. Mhm. ma déggee ci affaire waxtaanu góor yi. waaw. léegi nag affaire bi yéem ma daal parce que man. Mhm. maa ngi Europe fii di sëy. Mhm. waaye daal dama sëy góor boo xam ne dara waru ko daal maanaam. koo xam ne. Euh, xaw ma ndax xel ma tukku la woon xaw ma ndax euh, euh, góorgóorlu gi ma doon góorgóorlu fii la xaw ma daal lan moo ko waral mu dem Sénégal ñaan fa waajur hmm. takk ma mais dara waru ko daal moom dara dara waru ko dafa bàyyi ndeku daal waaw moom daal dara waru ko bi mu see ba day xam ni mu mel daal ba dara waratu ko ci man daal te waaw bàyyeeku ba pare li ma si gën jaaxal mooy que waajur yaa ngi may xaar Sénégal ay waajuram moom ak samay hmm. waajur hmm. bi daal euh, soxla naa ñaan daal ñaan daal laa soxla parce que waa ji ba pare dafa def ay mbiir yoo xam ne yu bëri yoo xam ne benn euh, waa ju baax bu ma xamanteel fii moo ma booleeg benn euh, moo ñaanal yooyu mu ne ma yow dañ la dañ la def ay mbir mu ne la yow dañ la def ay mbir daal waa gi daf la dafa la takk pare dafa def ay mbir dafa am yum la def waaw yoo xam ne daal man mënatuma def dara wax dëgg yàlla. Hmm. doy na waar. incha allah xam naa du ñàkk moog ci dinañ la defal ñaan bu baax. waaw man defe naa ne dégg nga cadre boobu. Hmm, waaw ci li mu wax. yàlla daf ko boolee góor xam ne nee na jéemul ci moom dara moom mu nga Europe waaye yaa ngi Sénégal mais jéemul daal ci moom dara am na ku mu dem waxtaan bu ñu ne ko waa ji dafa am yum la def mais yooyu est-ce que ay def-def la. wala man na bañ a nekk def-def. waaw voilà c'est ça est-ce que du waa moom la neex rek mu takk soxna soo xam ne mu nga et puis di basé wu nag ci koom-koomu soxna si tax mu ah, ñëw tëdd Sénégal rek loolu itam léeg-léeg mu bari mooy góor ñi du jël seen responsabilité ndax di wéeru ci jigéen yooyu dafa bari yi bu fay est-ce que du ci genre boobu rek la moom itam loolu laa yaakaar ne def def mën na ci bañ a am nag ok yaakaar naa loolu la bu ñu jëlee mbokk mais incha allah après nga defal ko ñaan pour yàlla jàppale ko allo salaamaaleykum aleykum soxna si waaw donc léegi li mu buggoon sama participation mooy lan. pour ah. jigéen ñi nga xam ne dañu dañu ñàkk seen borom kër. di yore ay xale yu ndaw yu ñuy yar. Uh-huh. mu bëggoon ngeen encourager leen parce que yar nekk seul bu pare di yar ay xale dafa metti uh-huh. voilà ngeen jéem ñu encourager. loolu daal moo taxoon ma woote. am na solo ngeen gën ñu encouragé. am na solo am na solo waaw ndax ñu ngi góorgóorlu di def lu ñu mën. mais nag euh, Pape dafa dafa nekk loo xam ne lu nécessaire si biir famille. waaw. vraiment kon ma woote pour participer. incha allah France lay woote. jërëjëf Ibou Faye soxna soosi dégg nga ko parce que ñu ngi waxtaan ci responsabilité way jur wu góor. digganteem ak yaay ji comme ni nga ko waxee. mooy doom ji juddu ci diggante yaayam ak baayam yaay ji xëccoowul cëru baay ji ndax di ko déglu ak di ko jiital pour yar bi comme ni nga ko waxee moom nag mu ne ki nga xam ne dafa yor ay doom mais way juróom génn àdduna bu góor bàyyee ko ay doom c'est difficile yi bu fay léeg leen mu jafe trop société bi ñu bëri ni ñu ngi dund loolu jigéen ñoo xam ne seeni borom kër génn nañ àdduna bàyyi leen njaboot gu sew boo xoolee ñu bëri sax màgg nañ ci loolu su naka lay jógee ak naka mu jafe lool nag su ko defee xam naa daal vraiment ci cadre boobu lay wax pour ñu mën a dimbale jigéen ñi kooku mu kooku mooy al armalatu al armalatu ndeysaan mm-hmm. Mm-hmm. waa jaa ngi koy wax bu àdduna bi yëpp amoon yërmande ci armala mm-hmm. ni ko noonu dina de al armalatul murdia am na ku ciy wax ki jëkkër ji faatu te muy nampal am na ku ci bind texte bu doy waar ndeysaan xanaa ma xamul kooku lan nga koy wax Ibou Faye waaw kooku ci fànn ci fànn boobu xam nga loolu dafa faral di am ci àdduna parce mooy euh, ñaar bu ñu àndee di sëy mm-hmm. ñoom ñaar kenn ku ci sa fan jeex da ngay faatu mm-hmm. bàyyi fa keneen ki mm-hmm. mais ci lislaam faatu kenn ci ñaar ñooñu taxuloon ci lislaam kenn tumaranke ci biir société bi du doom yi du jabar ji lislaam préparé woon na bu jëkkër ji faatoo xale yi danañ continuer am kilifa ndaw si dana continuer bokk ci benn famille jàppalante ngi donc léegi ñaari responsabilité laa laa ci bëgg a tudd rek benn bi mooy war nañu jàppale ndaw si ak doomam yi financièrement ba ñu mën a dund mën a euh, tekki ëllëg mais beneen bi mooy xale bi yooyu ñu nga xam ne tey dañ ko ko bayee ndaw si ni mu soxlaa ku ko jàppale ci lu mu dundee xale ak li mu noonu la war a soxlaa ku taxaw ci kàddu xale yi mu wan xale yi ne leen kii seen kilifa la soit mu nekk seen papa ba yu ndaw yi wala encore nekk seen nijaay mu ñu xamal xale yi ne leen ñoom kat seen papa dafa gaañu mais mhm. loolu taxul ñoom ñu ñàkk kilifa mhm. am na ñoo xam ne war nañ leen jox cër bu ñu leen waxalee war nañ déglu mhm. maanaam suñu xaaree rek ku amul loo jox xale yooyu ku amul loo leen dimbalee ñu jàpp ne kooku waratoo am benn kàddu ci xale yooyu loolu day tax xale yi ëllëg du ñu am kilifa te ñàkk kilifa googu fi mu leen mën a yóbbu ëllëg mooy gën a garaaw su ñàkkoon su ñàkkoon matériel day xaw a doy waar rek ba léegi day xaw a doy moo tax ma ni kilifteef toujours xale yi nañ leen dimbale parce que mhm. yoo xam nga ne l'islam moom préparé na xale yi boo xam ne ay waajuram dañoo génn euh, euh, àdduna mhm. kan moo ko war a yore mhm. ñan ñoo war jàpp dundam ba société bi bu ñu leen di woo day fekk ne ñoom amul kenn ku sës ñoom société bi jóg ja jël leen en charge état bi jóg jël leen en charge mais kenn ku nekk balaa état di jël charge ci yow day fekk sa mbokk yi sës ci yow macha jël ci yow en charge donc xale yi daal yooyu ñi war a taxaw ci ñoom nañ taxaw ci ñoom mhm, jàppale leen mhm. ndax itam borom bi subhaanahu wa taala amul benn nit bu mu bind bàyyi la ngay ñëw bokkaloo ci benn fan mhm, te kenn ku nekk su àllaaxiraa noo mel balaañ koy laaj ñi ci biti say famille ci biir laaj ko ñi biir laaj ko ñi ci biir kenn ku nekk am na lu la war sa diggante sa mbokk yi ndax yow sa bopp am na lu waroon ay nit ci yow ba tax kenn mënul wax ne man sama sotti ci société bi man kenn kese la man kenn kese la ay nit a def ci yow rek ay nit ay ñoo def ci yow ñoo dajaloo rek di def ci yow mos naa ko benn mbokk mu ne ma mhm, mhm. alors mu jógee ko Europe ñëw fi di dem dëkkam mhm. alors mu ne man su ma demee suñu dëkk damay kii man ma dëkk bi yow ma jox leen xaalis ma ne en tout cas li ma lay xamal daal mooy dëkk boobu ba dëkk bi daj koo fa defal dara lu baax rafet da ngaa fay bor da ngaa fay bor <laughs> parce que gis nga seen kër uh-huh. ah, boobu mënoon nga bi nga nekk xale mun naa am sax nga ci benn garab benn waay fekk la nga wàcc bu la fa bàyyi woon mën ngaa daanu nga daanu nga daanu dam waaw kay donc dëkk bi yëpp mhm. say mbokk lañ mhm. dëkk bi yëpp defal nañ la teraanga yoo xam ne juddoo ko kere mu nga juddoo ñaata nit ñoo fa daje mhm. nit a tumaranke ñoo xam ne ci a joxante cër dafa xaw a manqué léegi macha allah maanaam ni ñu joxante cër léegi dafa manqué da ngay gis koo xam ne papam rek la mhm. muy wax ne moom genn kilifa laa amoon mooy papaam dee na yàlla na ci àddina waaw mais ana ana mbokkam yeeg nijaayam yeeg ñu bokk ak eh, baayam papa am nay rakk am nay mhm. mag papa mhm. am nay nijaay moom mu déclaré ne moom genn kilifa la am kilifa gu génnaat kooku day doy waar xam nga doy na waar bu ñu ñëwee ci ñetti tarbiya boobu ma waxoon la Ibou Faye tarbiya jismiya tarbiya ruhiya tarbiya aqliya tarbiya wiqaiya waxoon nga ko xale bi yeeg ci garab gi vraiment am ku ko forom mu ne ko wàccal mhm. tarbiya wiqaaiya la mhm. kooku mu ngi koy yar mais mu ngi mu ngi aar xale bi ndax su ko fa seetaan noonu bu daanoo mën nay damm donte du juru ko mhm. waaye gis na ne kooku participé na ci léegi wa yar yar ci wàllu yaram moo gën a bari comme suñ doomi tey bu ñuy jàngi nga utal ko goûter dama koy wax toujours sangoo ko ba mu set solal ko dàll solal ko yére bu rafet ne ko demal nga jàngi xam nga kooku ñu ngi koy yafal yafal ak yar du benn dama xamul foofu lan ñu ciy leeralal Ibou Faye waaw xam nga ñett yi nga tudd hmm. léeg-léeg borom xam-xam yi dañuy indi tarbiya bu gën a yaatu sax loolu indi tarbiya imaniya hmm. tarbiya xuluqiya hmm. tarbiya mais ñett yi nga indi euh, moo gën a simple parce que nit buñ koy tarbiya mooy développé mooy développé nit ki mu màgg lim yor màgg loolu xel mi màgg jëmm ji màgg. bu ñu bu ñu jëlee mbokk mi. Mhm. ñu ñëw ci ñett yooyu allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Mauritanie laay wootee damaa bëggoon participer. fan ngay wootee. Mauritanie. Mauritanie xaalag. Eh baas incha allah. ça va alhamdulilah. Mhm. sopp. allo. allo sopp lañ seen jataay neex nañu trop. waaw. Ah, ñu ngi jégalu ligne bi. ligne bi waa Mauritanie. waaleykum salaam. ma ni damaa bëggoon participer ci émission bi. fan ngay wootee. Mauritanie. si xaalek. macha allah. aywa tafadal mashkura. Euh, ma ni seen jotaay macha allah neex na lu trop. Mhm. wallaay duñ ko rate waaye dafa amoon lu ma bëggoon laaj waaw bismillah. ma ni dafa am euh, sama benn mbokk. Mhm. boo xamante ni euh, si mariage dañ ko takkoon ci suba si. dañ koo takkoon. ci suba si. ci suba si. waaw léegi affaire boobu jaaxal ñu trop ma woon lan mooy takk ci suba si. sëy bi. ci suba gi lañ ko takk ban heure. ay booru une heure yooyu rek. Ah, te yow li nga tàmm mooy takku sëy ci takku saan gi. waaw waaw waaw dinañ ko lijjanti yàlla jox. Ibrahima Ibrahima Faye ko lijjanti. Eh, eh, jërëjëf shukran marhaba. Hmm. Ibou Faye dafa tàmm moom toujours sëy dañ koy takk gannaaw takkusaan te ne dafa am xaritam boo xam dañ ko takkoon ay jamonoy une heure wala bu neexee ba onze heures wala neuf heures sëy yi takk waxtu bi heure bi est ce que loolu moom lan amu ci solo ban jeexit la ci am sëy moom heure bu nekk mën nañ ko hmm. ñu ko mënul takk hmm. donc euh, li ñu li miin rek moom la ñu miin fii léegi léegi am ku ne ah, fekk fenn ñuy takk maanaam am bi ma nekk xale xaw moon ne sëy dañ ko takk faw moon ne sëy mën nañ ko takk bés bu dul àjjuma hmm. donc ñun li ma xamoon mooy àjjuma rek laa gis ñu takk sëy mhm. mais boo ñëwee fi Dakar da ngay foog ne sëy dimanche la takk mhm. waaw léegi dimanche bés bi kon bés bi amu ci solo bés bi amu ci solo heure bi aussi amu ci solo waxtu wi amu mhm. aleykum salaam wa waaw soxna si waaw maa ngi wootee France France ngay wootee waaw uh-huh. euh, dama leen doon dama leen ni woo ndaxte man fàtte maa ngi am dix ans fii si France yaa ngi am balaa maa ñëw nag dama doon Mm-hmm. balaa maa ñëw France bokkoon na samay ñaan ma daan ñaan yàlla naan ko damay bëggoon naa di ñëw fekk si samay borom kër. Mm-hmm. waaye su ma fi ñëwee su ma yàlla mayee doom bu góor Muaz laa koy tuddee. koo koy tuddee. Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal. oui saxaaba bu mag la wax dëgg yàlla. Mm-hmm. voilà mu doon koo xamante ne dama ko soppoon bëggoon. baax su ma ko daan déglu si waaraat su ma daan déglu waaraatee. Mhm, mhm. léegi yàlla dogal ba ma ñëwee ma am doom bu góor daal di changé tur bi tuddee ko Ibrahima. waaw. samay biir ñaan dama daan ñaan tamit bu doom bi juddee nekku góor dama koy yóbbu Sénégal yóbbu ko ci daara yi mu jàngee. Mhm. léegi ba xale bi doon balaa xale bi di juddu jafe-jafe France def ne aw ma woon këyit aw ma woon dara pour ma yóbbu xale bi. léegi ba yàlla def ba yombal ma ay këyit muy commencé war a am néeg war a am dëkkuwaay yooyu yëpp war a am liggéey. daal di am feebar bu ñu naan diabète. Mhm. mu jafe si man lool mu war ko dindi France yóbbu ko Sénégal mu war a dem foofu. Mhm. muy loo xamante ne comme dafa bokkoon samay ñaan. may mhm. laajte tey jii. ba xam ndax xale boobu ñaan yi ma doon ñaan tey jii ñaan yooyu yëpp defuma ci benn. est-ce que du loo xamante dina ma topp man ni sama dund. sama wala déet wala déet. wala déet. jërëjëf jërëjëf. voilà jërëjëf si. ñaanal ñëpp. incha allah. vraiment ñu ngi koy gërëm seen kii ñoom ñuy jàppale lu bari bari bari loo loo xamante ne dañ ko daan dund foofu muy sunna buñ fi ñëwee nag muy loo xamante ne àdduna dina dem ba nga xam ne bu ñu moytuwul dañuy dem ba réer. Mm-hmm. ndaxte lu bari duñ ko fi am ñun loo xamante ne muy njàng yeeg yooyu yëpp bëgg nañ ko fi di ko fi topp waaye amuñu ko fi. Mm-hmm. voilà. Euh, mais yàlla baax na seen waaraate yi ngeen di def ci télé bi day doon xam te dafa ngi fàttali lu bari bari bari. Mm-hmm, waaye ñu ngi leen ciy gërëm bu baax. jërëjëf. jërëjëf soxna si ñu ngi koy gërëm Ibou Faye dégg nga li mu wax dafa amoon niseur ne def na France dix ans seen fu ngi fii la dëkk mais def na France dix ans doon xalaat ne bu ko yàlla mayee doom bu góor daf koy tuddee Maasum nu Jabal muy sahaaba bu am solo mais yàlla def bi mu amee doom nee na mu tuddee ko Ibrahim amoon itam xalaat bu doom ji juddoo daf koy jël indi ko Sénégal mu jàng alquran mais bi xale bi juddoo ay jafe-jafe moom moo ko gaar foofa ci France mais tax na du am moyen yu mu ko indee Sénégal ak lu muy dundee mu far xale bi feebar jabet mu far ko xam naa xale ba reste daal foofa ci France di fajoo ko dugg ci école yeeg yooyu muy laajte niseur boobu mu defoon te defu ko est-ce que loolu mën na ko gaañ parce que ay jafe-jafe itam nag moo ko hunaka araqil waaw xam nga hmm. moom dafa ñaanoon yàlla rek dafa ñaanoon yàlla rek yàlla may doom hmm. yàlla may ko doom xëy na doom ji mu ñaan yàlla may ko ko yàlla may na ko ko mu amoon yéene yi tuddee ko Muaz. Mhm. doom juddu ñu tuddee ko keneen ku doon Muaz. Ibrahim Ibrahim mhm. ñaari tur yëpp benn bonu ci baax na macha allah mhm. eh, li ci am solo rek mooy ñaan yooyu mu doon ñaan. yàlla nee na moom ëpp na ab jaam tàllal ab julli tàllal loxoom ñaan ko lu baax. mu delloo loxoom du ko jox dara. mais nangu ñaan dafay ñëw ci ay anam yu bari. yàlla mën nga ko ñaan dara mu nangul la ko ba pare mais nangu googu du li nga ñaan la lay jox. mais bàkkaar yow amoon la lay effacer. Mhm. mën na la ko nangul ba pare te du la ko jox li nga doon ñaan mais musiba yu doon dal ci sa kaw moom la la fankal mhm. mën na la ko nangul ba pare du la ko jox waaye mu la ko bindal ay tiyaaba yoo xam ne su àllaaxiraa ñu fay la ko mhm. comme jullit yàlla la gëm di ko ñaan te yàlla moom moo xam li gën ci moom li gën su ñaanee yàlla ñaan gi jaamu la te it mu gëm ne yàlla ñim ñaan maanaam yàlla ci xekk ma lay maye ci ma lay maye xam nga maamu yónent yàlla Isa ba muy ñaan daf doon ñaan doom ju góor direct waaye yàlla mayut ko doom ju góor direct yàlla daf ko may doom ju jigéen nam bëggoon doomam jëmbel ko yàlla jaarale ko ca sëtam ba xam nga moom ñaanoon na rek mais ñaan la yàlla ci xekk ma lay maye dafa am sama benn jigéen sama benn jarbaat Absa sa muy doomu Adja Ami Fall sànq ci ngoon lañ may woo ñu ngi Paris ñu ne ma ñoom koor gi foofu Europe seen koor dafa métti bu fay tàng na tàngaay boo xam ne maar day taali te vingt deux heures la ñuy dog ñoom am ay am yoo xam ne dafa nekk France dafa bari lool ay pompi ndox la léegi nag bu tàngee lool ña fa nekk di wor léeg-léeg dañuy jël pompe yooyu di sotti ci seen yaram pour gën a seral muy laajte seral googu ab sa mu ngi toog di suivre ak Adja mi Fall ñoo ma posé les questions bi avant may ñëw man leen dinaa ko laaj sama invité tàngaay boobu mu tàng foofu ci Europe te defe naa ne posé na question mais ñi nekk Europe ñëpp ñoom la laajal question bi parce que kooru gi dafa tàng te temps bi heure bi ñuy woor ak bi ñuy dafa sori hmm. moom la ñuy laajte ndax loolu mun na yàqu koor wala déet bu ñu ubbee maanaam bu ñu jëlee ki nekk ci ligne bi pour mu bañ ci yàgg su ko defee nga dimbali leen ci question boobu asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si waaw man waaw waaw waaw waa ah, France ah, ah ñu alhamdulilah moom lu ma soxal la mhm. donc euh, moo tax ba ma eh, fixé émission bi rek ma ne foog ma participer. macha allah bisimilah. benn nag la en fait la amoon lu muy posé parce que man xale yi loolu la yore. enfant à bas âge lañ koy wax fii donc mais comme fii dañuy wax ne xale fii boo ko dóoree eh, amoo droit dóor xale pour yar daal. Mhm. parce que soo ko soo koy dóor dafay dévaloriser wu te des fois xale bi su defee bêtise des fois léeg-léeg il faut que obligé des fois de lever la main sur euh, l'enfant mais ñoom fii daal ñoom ñu koy jàppee daal loolu daal du day développé xale bi daal. Mhm. maanaam di ko di boole si éducation bi ay dóor. Mhm. léegi mu bëgg a xam ne est xale moom mun nga ko yar sans bañ ko dóor wala je sais pas daal en fait côté boobu moom gën a faral daal. macha allah pour pour éducation xale. Mhm. <laughs> loolu loolu rek laa amoon. am na solo trop soxna si am na solo am na solo trop parce que yar lañ wax yar wolof moom daf ne yar. <laughs> waaw yar nag mooy nga ut ab yar xaw ma nag ni wala fa juum xaw ma kan moo juum euh, arab moom daf ne tarbiya tubaab ne éducation mais wolof moom baat bi bu fekkee firi nañ ko mooy yar yar nag mooy am na yar boo xam ne moom la ñuy dóoree yi bu fay euh, wax na dëgg droit yi ñu jox ci droit de l'enfant xale yi droit yi leen jox boo xoolee Nations Unies seen droit de l'enfant maa ngi ko yore séminaire yi ñuy def ci laa ko am defe naa fukki droit fukki droit joxe nañ ko xale bi jox nañ ko neuf droit mais parent bi moom benn droit rek lañ ko jox xale bi jox nañ ko neuf droit mais parent bi benn droit rek lañ ko jox bokk na ci xale bi doo ko dóor soo ko dóoree am na numéro gratis boo xam ne ci lay woote yow papa dañuy ñëw takkale ci kanam xale bi toroxal la ba pare torture la bu ko neexee sax xale bi tëj la kaso loolu nag ci loi yële la mais bokkul ak lislaam mu ngi Europe bëgg a yar doomam xale bi nee na léegi léeg mu def bêtise yoo xam ne eh, vraiment moom bu sañoon ci niñ ko yaree moom mu yar ca doomam parce que moom fii la yaroo ci dóor nañ ko kon dóor xale bi muy laajte ndax xale mun nañ ko yar te duñ ko dóor ak bàcc bàccal gu nga koy bàccal bàcc bàccal torture xale bi la wala am na lu muy jeexit ci wàllu éducation ci dundam bu ëllëg su maanaam su ëllëgee waa xam nga ci même écrivain yi boroom xam-xam yi nga xam ne seen hmm. xam-xam dafa màcc jëm jëm ci wàllu yar hmm. ci tubaab yi boo xoolee ñu mujj ñi dañoo ñëw weddi ñu jàkk ñi hmm. parce dafa am benn théorie boo xam ne dañ ko faral di wax mooy man shabba ala shay'in shabba alayhi shabba alayhi mhm. éducateurs yi wax loolu ñoom dañu jàpp ne bi lu mu nguneewoo soo ko seetaanee loolu lay magee ba tax na ñoom mhm. lu mu def loo xam ne jàpp nañ ne mag waru ko def rek ñoom saa bi mu doonee xale lañ koy dóor mhm. génne ko ci léegi nag mu am période boo xam ne théorie boobu ñoom ñi ko doon appliqué yar moom mooy lu métti rek da ngay takk xale bi fitnaal ko parce que da ngay jàpp li war a li mu war a jàkkaarloo ci àdduna bi ci ay coono léegi foofu nga tabax mu nekk ni ko xam ne li koy tabax xam nga mooy lii lii lii Modou Massané doon yaree doom ji. Mm. nga xam ne ni da koy dóor tëj ku ci néeg léeg-léeg mu dem dóor ba mu bugg a dee desuwaat bañ laajee mu ne dafa bëgg nit bu juddoo ci fitna. bu màggee fitna du ko jaar day ñeme fitna day ñeme fitna mm-hmm. te bëri boobu ak xalaat boobu nga xam ne moom dafa jàpp ne xale dañ ko war a sonnal dañ ko war a méttital mm-hmm. dañ ko war a def nii ñooñu ni ñu ëppalee woon ci méttital xale ñeneen ñi mujj ñëw ñëw itam bi ñu ñëwee contre loolu. di indi beneen éducation xeex bi ñu doon xeex idée ñële ñoom it da leen yóbbu ci ñu faf. ñu am échec. ñu échec parce que dañoo boyal xale te loolu dafay faral di am ci wàllu xam-xam. maanaam toujours ñu mujj ñi bu ñu ñëwee dindi xalaatu ñu mag ñi rek ñu jàkk ñi rek soo moytu bu ñu ko dindee ñoom it dindi ga dafay ëpp. ndax la ca baaxoon sax dañ ko jay dañ koy dindi waale dañ ko dañ koy dindi waale loolu dafa dal dafa leen dal ci ñu mujj ñoom tam bi ñëwee. ñu dal di jox xale ay droit yoo xam ne parce que comme boo déggee sax ñu ne rek. Mhm. mooy dafa mel ni kon am na lu jiitoon mooy ñoo xam ne dañ ko xañoon ay. Mhm. ay mhm. droit ay droit waaw. léegi droit yi mujj ñëw nag. libéré xale jox ko ay droit yoo xam ne. daanaka fa mu jëm. ba su ko neexee tëj waaw léegi nag man foofu damay bëgg a wax ne. gis waxoon naa sànq bi ñuy tàmbali fi ay jaarukaay. mais toujours bu ñu nee nañu yar xale bi li war a njëkk laaj mooy ban nit lañ soxla. xam nga France nit kañ soxla ca France. bokk lan nit ki ñu soxla ci Sénégal mm-hmm. bokkuñ de mm-hmm. parce que culture Sénégal ak mm-hmm. société euh, euh, culture France seen société yi duñ benn seen culture duñ benn seen aada duñ benn seen diine du benn donc comme sénégalais bi buñ koy yar dañ koy yar ci ban sénégalais ban nit lañ bëgg suñuy aada aada ak suñuy diine ak suñu mel noonu léegi nag moo tax tarbiya éducation bi nga xam ne dañ ko bëgg mondiali mondialisation du sotti mondialiser nga xam ne ñëpp ko war a bokk te bokkuñ fu ñuy dund loolu mooy ci wàllu Euh, dóor xale ak ñàkk dóor xale. Hmm. dóor baatu dóor. Hmm. Hmm. alxuraan def cee ñëw mu jëmale ko ci jigéen. kenn ñi may tudd koŋŋan. te alxuraan bi muy tudd nañ dóor jigéen daanaka jigéen ji ak doom ji la doon protégé parce que dafa jàppoon ne sëy bi yegg na foo xam ne bu ñu ko tasee liy juddoo ci catastrophe ci xale bi bi ñu yar ak catastrophe bi nar a dal ci ndaw si. dóor ndaw si sax ba mu toog sëy bi moo gënoon li nar a judd. te bëri jigéen boo xam ne dóor nañ ko ci sëyam. mu tas sëy bi toog na gis dundam yàqu doomam yàqu ci façon boo xam ne mhm. tey suñ ko noon dellu ñu dóor la danañ man dóor ma fukki mhm. yoon nga tas juróomi yoon te nga toog am na kon dóor boobu lislaam doon tudd ci mhm. ndaw si protéger doom ji ak sëy bi saxoon moo taxoon mu di ko mais duut jubluutul méttal beneen bi mooy lislaam dafa tudd dóor xale yonent bi saa sallam wax na ne xale bu amee fukki at ngeen digal ko ba pare wax cause bi tax ñuy dóor xale ñàkk julli waaw ñàkk julli la wax de cause bi tax ñuy dóor xale mu ne su amee fukki at ngeen digal ko ñu nu bañ dóor leen ko mhm. indi ay façon dóor yoo xam ne doo gaañ doo de extra mu wax mhm. loolu mhm. donc ñun soo xoolee ci adduna bi tarbiya bu ñu ko waxee du xale rek mais tarbiya mag sax dañ koy tarbiya donc même léegi adduna bi amul fenn fu ñu du dóoree mag te jii am na yoo xam ne boo ko defoon fii police jàpp la waaw maanaam xale boo ko dóoru ci gone rek bu maggee ñu duma ko te xale yii nga gis nii te man naa dóor gone moo gën a jekk dóor mag te chaque jour nga gis fi mag ñu police jàpp di leen dóor dóor yoo xam ne dóor mënta ñàkk Ibou Faye léegi dóor ci boppam eh, léegi léegi léegi waxtu yi daf ju dab mhm. boo ma tontulee Adja Ami Fall ak Absa waaw ci tàngaay boobu ndax waxtu wi jot jeex na tag lan nga ciy wax ci serlu boobu waaw tàngaay bi dara nekkul ci tarbiya bi dinañ ci ñëwaat parce que du thème boo xam ne day jeex ci benn émission tàngaay boobu nga xam ne moo tàng yi am sedd loolu yàqul seen koor mhm. bokkul ci yi nga xam ne dañuy yàq mhm. mhm. naa yàq seen koor ci biir ndox moomu boobu yeggul ci seen biir yooyu macha allah allah mais serlu gi daal yërmande la yërmande la rek macha allah xam naa ni waxtu yu moo ñu dab waxtaan tarbiya xëjul ci une heure de temps dafa mais dinañ ci dellusiwaat parce que defe naa ñetti tomb yooyu ma waxoon la tarbiya jismiya hmm. aqliya ruhiya wiqaiya ñett yooyu sax amoo temps boo xam ne traité goo ko te waxtu moom du yërëm hmm. mais dinañ ci dellusiwaat parce que defe naa ne euh, vraiment euh, liñ ci liñ ci préparé yëpp xëjul ci benn émission xanaa di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi toog ci seen i kër di seetaan ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu dañuy jéem rek xëy na sax yaruwuñu àddunaa ko soxla rek ñuy jéemantu ci cadre boobu rek la ñuy waxee yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp yaral ñu sunuy njaboot ba ñu mel noo xam ne yàlla dina yàlla dinañu gërëm yónnent bi gërëm ñu mais sunu société am gërëm ñu yàlla na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñëpp di baal ñëpp ak asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.